scanner bi alhamdullilah lay wax way bu ba alhamdullilah parce que suñu borom fexena be tay mi ngi ci bir hôpital daw suñu kilifa ñaanalon nañ ci bi ñu alhamdullilah parce que ñent la won bi xamantene mo jëm fi mom lañu jot yeneen ñett yi ñi ngi ci yoon bi yaakaar naa ne fekk le mois de mars inshallah allah ko jot man ko dispatcher ci système de santé alhamdulillah scanner nag dafa am solo lol ci walu hôpital parce que am na diagnostic yo xamantene pour que mën ko def ba xam réellement nak ngay aborder malade bi il faut que nga jaral ko foofu daana jar nit dem ba Dakar pour def ko delu si mais alhamdulilah buñ ko amé fi si hôpital Mame village ci dabax l'hôpital bi li soxla moy minimum hôpital bi moy lo xamni hôpital bi mënu ko ñak li ñu soxla fii ñu toll mooy euh, monsieur le ministre nga affecter ñu ay médecins bu bu bu bu bu bu matériel bi bare lu nekk am fi taamul spécialiste bu ko jëfandikoo moo zéro m soxla nañu ay orthopédiste yoo xam ni dañuy ñëw liggéey lu hôpital bi di jëriñ fonctionnaire yi it foog ngeen euh, forcer leen pour affecter leen fonctionnaire dafay déplacé wu fonctionnaire dëkkul fenn fu ko service am yónni rek war na fa dem bu fekkee ni am na conscience professionnel waru gàntu dara àll baa taal yee ci bokk war na fa dem pédiatre war na fi am fii ku fi nekk di liggéey nekk kilifa daa daa mën a war di déplacé wu di dem ak di dikk lu tax du ngeen wut benn récupérer oto ñu retapé ko jox ko directrice bi nañ ko wutal oto muy déplacé wu di seeti li mu yilif ndax hôpital bi kat fii la ne waaye gannaawam yaatu na euh, li ci des mooy voiture de liaison hôpital bi soxla na ko directrice bi du dem keneen du dem waaye dinañu yónnee ndaw liaison boobu ñuy def euh, bëgg a dem ci région bi bëgg a dugg fii génn fale soxla nañu voiture de service auto di service boo xam ni nit ñi mën nañ ci dem di ci doy yónnent waaye buñ ci ko jotee itam ñu bañ ko dugal ci beneen fin di ci denrée alimentaire di ci jëli ganab di ci def leneen hôpital bi am na jamono daaw bi ñu fi ñëw dañu bari woon bor Ahmed Amar indi fi li mu fi indi ñu daal di jël loolu rek la ca bor yëpp ndegam jeex na ndegam bor yooyu jeex na wóorum bor yooyu jeexul loolu nag li tax ñu di ko am bor yi moo di subvention bi moo doyul war nañu augmenter subvention bi li ñuy tëjee mooy niveau hôpital bi niveau hôpital bi dafa yàgg ci niveau un ñu dem ba di ko ba ba di ko muur di wax nii ñu ngi ci niveau de te bougé wul kon nañ ko yóbbu ci niveau trois ah bu demee bu demee bu mën a am scanner mën a am leneen mën a am leneen pour nit ñuy gën a tàllal seen loxo mooy niveau bi na kawe bu niveau bi kawee pourtant buñ ko fi def li def ko feneen rek il faut loolu nag yaa ko moom loolu moom kenn moomu ko tunga ne du teew mukk ñuy nataal ñu lay gërëm di la ñàngal yàlla waxuma ministère gi waaye maire yi bala nga amee ci yoof amee ko ci sa biir mbokk man ma xam ni lu ñuy def nga dugal ci sa loxo lu ñu nekkee nga nekk ak ñoom ba tax boo jógee kilifa yi jóg waa jëlee nga gis ku dëgër bopp la kenn mën ko yëkkati dégg nga kon nag bu boo jógee mu jóg am na lu xew du dëng yàlla na la yàlla jàppale